الله من كل كريم أكرم من آمه قلد لهم تكرم salaamaaleykum mbokku internet Dakar Medine mi ngi fi nga xamante ne tey mooy ñaanal ndindigu Afia mi ngi ñëw fii ki nga xamante ne tey mooy sëñ Baara bi nga xamante moo toog xalifa xalifa sëñ Afia mu ñëw waxtaan moom ci li nga xamante ne lu jëm tuuti si màggal gi yóbbu ay kàddu di ñaanal ñëpp la ñaan jàmm ak salaam di ñaanal lépp loo xam ngi koy ñaan ci màggal gi yàlla ñu koy yàlla defal sëñ bi maa ngi leen la si ak saa ñu ngi leen wax dal leen jàmm waaw dal leen jàmm di nuyu ñëpp mbokk jullit yëpp ak mbokk taalibe yëpp di jiital nuyoo bi sëñ Muntaxa Basiir ñaan yàlla na ko yàlla may gudd fan waaw ak euh, Baraka it ñu ko ko mm, li bëgg a liggéeyal Cheikh Mourou Fallou matale ko ak njaboot gépp ak gépp di ñëpp sant ñëpp yaa ngeen jëf ñu gis li nga xamante ne tey mooy màggalu 2020 yi gis nañ ñëpp li ñu gis ci màggal gi mosuñu ko gis yi ci mbooloo mi ñëpp sëñ bi waaw ah loolu moom Euh, lu sëñ Tuubaa liggéeyal boppam la waaw ndax euh, ba ñëpp bañee moom moo nangu kon ko nangul yàlla nag moom kepp faaw suñu borom may ko lu mayul kenn waaw te lu jamono di gën di dox nit ñi di ko gën di bëgg lu màggal di gën di dox màggal bi di gën di yaatu waaw mbirum sëñ Tuubaa moo demee noonu waaw day day dox di dem rek <laughs> waaw sax boobu boo xoolee boobu nit ñi amoon nañ njàq rek tiitaange bu bëree bëri li nga xamante ni demoon si wàllum feebar bi mais gis nañ depuis màggal gi ak léegi feer bi amuñu benn cas boo xamante ne annoncé nañ ko fi. Ah, <laughs> xam naa ni moom suñu xam ci côté boobu waaye daal moom moom ñun de li ñu jàpp man bokk euh, feebar ak ñàkk feebar moo ci am ndax suñu borom mi ngi jël nit ñi te jaarewu ko ci feebar. te suñ tubaab moo nu gënal suñuy ruux waaw tey jii bu doonte dañ dañ koy def di faatu sax dañ koy def nii waaw ndax euh, genn kilifa la am mu taxaw ba si waaw tey bu ñu woon bu kenn màggal duñ ko def waaw kenn amul sa sañ def comme moo joxe ndigal ndigalu suñ tubaab la waaw moom bu bakkan yi doon root bis bu ne it màggal gi moom kenn mën kenn mënu koo <laughs> def ndax ndigal mu lay waaw kon nag feebar boobu moom amul leen lu ñu ciy ragal ci lu man bokk tuuti ma ko ragal moom waaw yàlla daal laa ragal waaw waaw <laughs> yaa ngi ndaw ñi nag ñi nga xamante ñu ngi ci yoon wi. waaw may ñaax sama bopp rek laa leen ñaax ndax nit moom saa buy wax mbaa muy yedd na ko njëkk ci boppam ndax moom xamul ndax jub naam déet wala dëng naam déet. waaw kon nag ndaw ñu moom lu may dénk rek ñu gën a am jom ci lépp gën a jaamu yàlla gën fonk seeni kilifa gën a it di dégg ndigal waaw ndax loolu ñaar yooyu dong moo fi nekk waaw loolu moom moo fi nekk <laughs> allahu min kulli karimin akram تكرما